siècle au Sénégal, on puisse sortir encore des synapses telles que non, ce n'est pas possible, non, elle ne peut pas serrer la main du marabout, du vieux, et elle ne peut pas être dans la même salle. Et pourtant le soir, comme quelqu'un me dit, peut bien lui serrer beaucoup plus que la main. <laughs> D'autres. Papa Amadou Sall mi lu ko dal taf taf chronique mi ngi noonu émission bu bees tàq chronique bu Tapha Touré l'international mais Pape Amadou Sarr mii kii kii xanaa bi muy def point de presse bii di sargal jigéen ñi doon xoojal foofu ay fer wala ay gawe wala ay beeto la jàkkaarloon ba tax yaramam tànk ay Pape Amadou Sarr mii lu ko yow boo defee sa déclaration fu seen wax ak réew mi ngir sargal jigéen ñi waaye yow yow yow ñaata discours ñoo fi ñëw discours yoo xam dafa simple modeste bu pare nekk ay discours encore di encourager nit ñi ay volontairement jigéen ñi femme de talatay ndeer Aline Sitoé jaata nga wax ci jigéen ñu baax ñi ah nga wax ci maam Mame bu Bousso ah nga wax ci Ma Fawa Adouele waaye yow man daal lan moo ci yoonu lislaam ba nga naan ay bu bëccëg jotee bu guddi mooy Pape Amadou Sarr wàcc nga sa yoon barke yu gis nga nit un autorité bien qualifié nga jàng nekk ni koo xam da nga am savoir am style de vie mais Pape nga wax wax ju simple rek ñu ngi sargal jigéen ñi ñu ngi jàppale jigéen ñi jigéen ñee ngi teel a yow waaye yow amoo looy jël comme argument lu dul naan waaw jigéen ñi bu bëccëgee sëriñ si danaa du leen jox loxo bu gudd gee yow loolu moo sa yoon gudd gi lii am ci kër sëriñ si ak roq-roqaay lu ca gis nga pas Amadou Sarr financement lañ la dénkoon DER yow dèjà ñu ngi nekk ci DER naa DER bi dox naa doxul ak DER bi ah finance nañ jigéen ñi financé wuñ jigéen ñi noonu nga fi dem man bi sax convoqué woon nga ma réunion yow doo ma tee naan sama café xam nga lu tax da nga ëppal gis nga nit gis nga nit nit xel lu weesu xel dootul xel yow mënoo teg nga réglé mais xam naa bon amoo euh, conseil technique ci wàllu discours parce que ce discours bi organe la génn billaay ñii ñi sax parce que yow yow yi ngay lijjanti ci la la lii xew ci guddi luy sa yoon yow yow boo la nga naan waaw les dans la nuit ils approchent lui de peut-être que la matin il se déplaçait la matin on se s'encrochait pas yow wax yii ngay wax gis nga nit boo bëggee loo dugg géej ji da ngay wax li nga xam nit day téye làmmiñam yow moom xaw ma koo doon financé yaa finance ba finance culture bu ñu ni dinaa nga financé religion dugg ci religion serme gis nga solution yi des nag dan laa raje yow moom sa rajo bi daa gaaw sax ndax yow 8 mars nga wax 9 mars suñu rajo la man lu gaaw yi ni mosuma koo gis moo tax may wax sénégalais yi nii képp kuy autorité boo toogatee de sa costume bu baax booy wax tubaab nee na avant de parler tourne la langue dans la neuf fois maximum dix xanaa yow jàngoo observation boobu avant de parler il fo tourne dans la langue maximum neuf ou dix tourne tourne tourne la langue la langue waaw ah, ah, ah. ba nga xam ne la na lu lu assuré loo xam ne ko soo ko waxee say mbokk duñ la xeeb loo xam ne soo ko waxee say xarit duñ la loo xam ne soo ko waxee dëkk de du wàcc ci yow nga doog ko yàq yow lan mooy sa yoon sax man fan la mooy sa problème yow sëriñ si ni ñuy def guddi gu lu sa yoon yow yow en tant que citoyen simple da nga ëppal rek yow sa làmmiñ di wax rek yow 8 mars moom doo doo ko fàtte sa journée la tamit bokk na ci journée jigéen ñi mi ngi noonu chronique taf taf la woon mu ngi noonu noonu lay demee ci télé Sénégal abonné leen te partagé te wax ni essayer de de de comprendre la vie la vie c'est très dur mais c'est très simple musetiser rek sargal jigéen ñi ñaanal jigéen ñu gudd fan am point télé bul wàcce aaye bul dem ci démb bu ñëw ci ay ayca mi ngi noonu ancien ministre des finance caaw caaw xam naa si opposition bi lay mujj def nu wàcce nga dem feneen jërëjëf